jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi fm 97.5 seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15 heures jotee jàpp 16 heures ngeen di si ànd ak euh, Abdou Khadre Seck du Diawa Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokki tey ñu invité Mor Diaw euh, mu nekk coordonnateur national des jeunes du grand parti waaye tamit mu nekk mandataire yeewu askan wi ci département bu Guédiawaye Euh, tey nag am njaween la laa <laughs> invité moom la sekkeen bi invité euh, suñ Mor maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Abdou Khadra sekkeen bi bëgg ceeb. <laughs> Euh, nga nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo lay déglu ak mbokki géejawaay. waaw baax na Cheikh bi maa ngi lay nuyu bu baax yow di la di rafetlu invitation bi nga def tey di profito également ci occasion bi di nuyu sénégalais ak sénégalaises yi ñuy déglu fii ci biir réew mi ak bitim réew. rawatina comme ni nga ko waxee sunu mbokk ya nekk Géejawaay ñu ngi leen di nuyu bu baax à travers nuyoo bi également ñu ngi nuyu suñu président le président El Hadj Malick Gakou et tous les responsables et militants du grand parti. Euh, Mor jaw yow nga nekk coordonnateur national des jeunes du grand parti nga nekk mandataire Yewwi Askan Wi ci département bu Géejawaay ñu gis ne démb ci ajuma ji amoon na ay kuréel yoo xam ne ñoom dañu amaloon manifestation ngir ñoom nee nañu justice bi dafa jénk. Euh, lan moo ci sa ci manifestation boobu. waaw di fàttali rek ne euh, euh, tey ci taxawaayu grand parti laa fi ñëwee di wax ne boo xoolee depuis 2015 ba grand parti tegoo ba léegi amul combat bu nga xam ne dañ koy xeex pour àq ak yelleef doomu aadama pour àq ak aspiration population yi te gisoo ci grand parti mu jiitu wala mu bokk ca xeex ba ci logique boobu démb dem nañ ci rassemblement bi nga xam ne FRAPP. ñoom ñoo ko initié ak waa Yanamar ñu leen ñu koy rafetlu bu baax a baax di wax ne effectivement ils ont parfaitement raison boo xoolee réew mi ni muy doxee xool justice bi ni muy doxee xel da ciy tey da ngay xam ne justice ba xam ne deux poids deux mesures la te loolu war nañ ko dépasser fii ci suñu réew xoolal tous les dossiers yi nga xam ne nii président Macky Sall nee na teg na ci cooncoom nga jugeeti foofu tous les dossiers yi nga xam ne ça concerne l'APR ou bien les responsables de l'APR niñ ciy doxalee ak les dossiers yi nga xam ne ça concerne l'opposition tout en sachant que même ces dossiers là dañ koy fomenter organiser ko de toutes pièces coller ci motif nit tëj ko lu dul dëgg du yoon ñu profité ci occasion bi di mastawu notre frère le camarade kilifa nga xam ne ni arbitrairement lañ ko jàpp tëj ko ci kaso bi au moment où ña génn vidéo yi ña def vidéo yi ñu nga wër di tamambaalu loolu nga xam ne ci réew mu toll ni réewu Sénégal bu demee ba lu mel noonu am fi effectivement yoon la nit ñi dox doxub ñaxtu wala ñu def rassemblement pour lutter contre l'injustice bi nga xam ne ni mi ngi sévir ci réew mi te sax na fi te lépp kenn waralu ko loolu le président Macky Sall ah, mais xanaa Mor Diaw kon yéen ñi nga xam ne yéen a ci wàllum politique yéen yéenay wax mbirum injustice wala kon justice moom buy jeng si yéen lay jeng ndax dañoo gis ne ñaata millions yi doomu sénégalais ñoo fi nekk di dem yoon ak dikk di dem yoon ak dikk ñii ñu leen di mandat ñii ñu leen may liberté provisoire ñii ñu leen di setal te te te même te yi la. ñaata yoon nga dégg ñu ne dossier bi yàgg na ci justice nañ ko évacuer nga xam ne citoyen lambda lay concerné ñaata yoon lañuy ñuy jugé citoyen lambda jugement boobu am erreur. ñaata yoon la citoyen lambda bi di clamé wu devant euh, un porte-parole ou bien devant un porte-drapeau pour lui dire que niñ ma jugé wala niñ ma defee nii nii nii du yoon bari na ça ne concerne pas uniquement l'opposition et les politique de manière générale ça concerne le Sénégal tey jii ñun xeex bi ñuy xeex du xeexu opposition du xeexu ay activiste wala leneen xeexu sénégalais yi la les sénégalais ci boppam ñoo constaté ni justice yi ni muy doxee baaxul il est temps que ñu tëggaat suñu justice defaraat suñu justice suñuy magistrat ñëpp am une position neutre bu ñuy permettre suba du am ku ma ndey ku ma am ndey ak ku ma amul ndey képp ci bépp boor boo féete bu fekkee ne da ngaa tegg yoon yoon dal sa kaw mais mënuñu comprendre nga péete boor bi nga xam ne nii mooy booru pouvoir exécutif teggi yoon ñu maslaa ko teg ay subterfuge ba nga euh, génn ci loolu dem ci leneen ñaata nit prend le cas de not notre cher Guédiawaye Bougazali mi ngi tamaambaalu flagrant délit lañ ko jàpp te loolu est-ce que yoon la parce que tout simplement non au-delà de cette liberté provisoire dama ne xam nga ku feebar doo tamaambaalu ci ay ci ay ceeg yooyu non c'était d'ailleurs juste une parce que man du ma épiloguer ci ci kooku mais li euh, may wax mooy li may wax mooy boo xoolee justice su Sénégal ni muy doxee le cas Karim Wade mi ngi fii le cas Khalifa Sall mi ngi fii le cas Kilifeu récemment nii mi ngi fi ak yeneen cas te yooyu yëpp ça concerne des hommes politiques ou bien des personnalités de ce pays ya xam ne ni bu ñu féetee boor bee ñu tegal leen ay ndigg sërëx daan leen def justice bu sévère ci ñoom nga wëlbatiku ñu féete boor bële ñu soit dañ ciy teg conc soit ñu naxasaale euh, teg ay service ba génn ci dossier yooyu loolu sénégalais yi de manière générale ñoo ko constaté et il est temps que mu dañ ci réew mi te loolu quand même il faut rappeler que ci nguuru Macky Sall la accentuer accentuation bu jéggi accentuer bu jéggi dayoo te loolu je pense qu'il est temps comme ni ko force vive yi dafay démb ñeneen ñu continuer di ko def ba incha allah bu ñu yàlla may réew mi ñu teg justice bu équitable. kon daal yéen da bëgg daal di continuer di def ay manifestation rek di wéy. non ce qui est clair mooy ñun li ñu tout li ñu constitution may lépp la ñuy jël moo tax démb on a organisé bien évidemment sous la houlette de Y en a marre et FRAPP rassemblement boobu dañuy continuer di ko def parce que quand même résistance lañu euh, constitution may on va continuer à résister wax nañ ko waxati ko. non président Macky Sall na fitna ci yéen la jógee fitna fitna jàmm ci moom la ne. parce que moom mooy borom caq mais nag boo bëggee nekk tyran bëgg nekk dictateur di nga xam ne ñun opposition bi nous allons jamais capituler devant sa tyrannie. loolu moom leer na. résistance constitution bi moo ñu ko consacré may ñu ko ci logique boobu la ñu nekk te ci logique boobu la ñuy dox fitna nag ak ay moom moo ko yor moom mooy borom caq bu doxee ay. moom la bu doxeek firnam moom la ñun opposition bi jàmm lañu woote jàmm lañ mës a woote tey jii lu justice bi nësax nësax nësax li secteur croisé de la vie des populations yëpp lu mu nësax nësax nësax du tee ñun jàmm lañu woote mais nag suñu droit à résistance kenn duñu ko tere te incha allah dinañ ko dinañ ko doxee. ko léegi euh, Mor Diaw euh, yow yaay euh, coordonnateur national des jeune du Grand Parti mais yéen opposition bi. ak ñenn ci société civile bi ak activiste bi yéen a ngi wax ne euh, Macky Sall moom ci boppam njiitul APR moom mooy indi fitna moom mooy yee moom mooy def fitna mooy dóoraate mooy bundaxataale mooy tëjaate je donne un exemple temps yële di euh, coowal nervi yi amoon na fi mais comment par exemple un président de la république buy déplacé wu président ba nga xam ne moom la a nekk le garant de la sécurité nationale du Sénégal nekk garant sa sécurité yow nekk garant sama sécurité muy déplacé wu nga gis ci cortège am ay nervi loolu c'est très grave et c'est le président même de la république bu doon déplacé wu moom moo ko def amul ay sama responsable bii moo ko def wala keneen ci cortège am lañ gis loolu des nervi ya nga xam ne léegi nëbbatutuñu sax dañuy def ay conférence de presse ainsi de te loolu c'est très grave dans un pays comme le Sénégal donc nag mooy loolu muy indi fitna on va vers les élections pré campagne ñi ngi ci ñi ngi dugg ci campagne il est important que moom mi nga xam ne moo yor paix yor sécurité mu veiller à la sécurité des personnes et des biens de ce pays. d'accord léegi Mor li ma bëgg a wax mooy yéen opposition bi yéen a ngi tuumaal président Macky Sall camp présidentiel que ñoom ñooy def fitna ñooy def violence waaye moom ci organe de presse bu jóge woon bitim réew. wax na ci ne fitna ji ci yéen ñi nekk ci kujje gi ci yéen lay jóge xam nga li gën a ñaaw mooy euh, président ba nga xam ne heure boo bëggee wax ak sa askan dem ci organe de presse yooyu wax loolu ñàkk a wala ñàkk a wekk même organe de presse yi ci réew mi la te loolu c'est inadmissible foofu la ñu war a njëkk a corriger d'abord beneen bi mooy waxi Macky Sall moom yow xam nga ne jarta dóor sa doom moom mooy yee fitna ba pare di renforcer davantage dans sa propre tête fitna gi ba finalement mu koy accuser l'opposition en réalité sénégalais gi yépp xam nañ ni jox naa la exemple nervi yi joxat naa la exemple euh, le cas de Barthélémy Diaz récemment le maire Barthélémy Diaz génn di doxantu ñu pamte pamte ko ne ko rappelé alors que euh, de l'autre côté. Euh, li xewoon Ziguinchor ñan la. li mais li xewoon Ziguinchor effectivement ñoom la. xam nga le problème de fond mooy lan. les militants je je termine man je je je j'étais pas à Ziguinchor mais je parle de manière générale boo xoolee ñoom les responsables de la l'APR ku ci tànc opposant il est fier de lui ku ci butu xatal opposant il est fier de lui parce que tout simplement seen chef seen leader en chef. moom mooy doxee noonu ba tey ji il se glorifie euh, les responsables de la per kii de tànc naa ko kii de xoj naa ko fii kii de def naa ko li kii de def naa ko lii ay fañi fañ ay yenu ci kaw du suuf yooyu yëpp c'est des termes violents ba nga xam ne nii moom lay incarner moom lay waxee à partir de ce moment la fitna gi moom la nekk ci kaam la nekk. d'accord léegi léegi euh, Mor Diaw euh, sànq yaa ngi wax kaaw kilifa mais dafa am ay passeport diplomatique ñaari député yu ñu si tudd euh, di ki nga xamante ni tey Mamadou sàll la ak bi yaay ñoom ñu bokk ci Benno Bokk Yaakaar. mais dind nañ seen malaanu kiiraay mais boo léegi ni daal kenn wóoluwu leen mbir mi daal ñenn ñi jàpp nañ ne yeex na trop par rapport bu doon kenn la ci opposition. mais yaa ko wax mon cher xam nga le problème de fond mooy jëlal le cas du président dina mbalaanu koraayam daa duré temps bi yëpp temps ñoom biyaay bi duré le problème de fond mooy effectivement yaa ngi may rejoindre par rapport ak justice à deux justice à deux vitesses mais loolu Cheikh Abdou Khadre je suis parfaitement d'accord askan wee wax loolu mooy li ma la wax léegi-léegi askan wi moo ne on a une justice à deux vitesses tey jii prend le cas de ces députés là ils ont pris énormément de temps pour dindi seen mbalaanu koraay après ils vous disent que le temps de la justice n'est pas le temps alors que bu dee opposant la temps yi à la limite dañ koy bâcler procédure d'urgence bi ñuy wax moom la ñuy adopté bâcler sa dossier tëj la pamte pamte tëj ci kaso bi actuellement ñi ngi tamaambaalu te ñoom it flagrant délit leen jàpp un député qui peut épouser neuf femmes ainsi de suite ainsi de suite je pense que réew mi jot na ñu respecter réew mi respecter askan wi te loolu résumé Macky Sall je pense que romb na yoon boobu au contraire fi mu sax dañ ñuy gën a tooñ di ñu gën a toñoñal te il est temps quand même un changement dans ce pays. d'accord jërëjëf euh, Mor Diaw léegi euh, loolu ci actualité bi la bokkoon leneen loo xam ne ci actualité la dañoo gis ne conseil des ministres bi passé président Macky Sall moom ci boppam ndey mbill gi moom moo ne dafa am benn recrutement anarchique boo xam ne dafa am ci biir administration bi maanaam ci direction yi ci ministères yi ci agence yi dañu gis ne daal am na recrutement yoo xam ne amalul njariñ askan bi yow lan moo ci sa ci lool xam nga yàgg nañoo dénoncer népotisme ak conspiratisme yàgg nañ ko dénoncer ci réew mi le président Macky Sall il est le mieux renseigné le mieux informer de ce pays xam na loolu bu yàgg mais il est dans la politique politicienne xam nga au-delà des dotations factorielles naturelles les recrutements doivent être guidés par la compétence et les connaissances c'est ça la réalité mais bu fekkee ne ces recrutements là sont guidés uniquement par la politique de gestion d'une base pour se servir de cette base là pour un tremplin électoral bu boobaa day poser problème prends le cas de Koud prends le cas du port prends le cas de Crous prends le cas de ainsi de suite l'ONAS feneen ak feneen les gens se se servent de leur posture de DG ou de ministre pour recruter une base politique pour s'en servir pour un tremplin électoral et c'est ça qui est dangereux nous dans notre programme on l'a clairement dit wax nañ ko tey jii je te l'ai dit les dotation factorielles naturelles boo ko rombee la le recrutement doit être guidé aussi bien par la compétence et les connaissances fii nous avons de jeunes talentueux des cadres compétents mais loo ci gis la plupart quatre-vingts pour cent pratiquement ñi ngi chômé ah, parce que tout simplement ah. mais ay militants la ñuy jël tey jii regarde le cas des enseignants ñaata groupe d'enseignants ñoo taxaw yuuxu parce que recrutement ba nañ ko defee la c'est du népotisme jël sa jabar jël sa jabaru xarit jël sa jabaru jël jël sa doom jël sa doomu xarit ainsi de suite dugal nonobstant euh, kee toog fële am ay diplôme am jàng ba taxaw gis nga réew mi du réew mu ñuy paacoo il faut que les gens reviennent à la raison effectivement il a parfaitement raison mais moom la et en plus au-delà des DG et des ministres parlons de lui-même le président Macky Sall moom moo njëkkee recrutement énergie boobu da ngay jugee grand parti ne numéro 2 la ñëw ñu def la ministre conseiller parce que lan dañ lay débaucher débauchage yooyu yu lu gën a ñaaw loolu ci politique amul mais tey jii tu es aux côtés du président Gakou wax wax wax wax wax les gens te reconnaissent un peu on t'appelle nga ne non man je le numéro deux de l'AFP euh, du grand parti et le président jël la dugal la ci cabinet def la ministre conseil ñaata ministre conseil am actuellement jariñu ñu ko dara lu dul politique ñaata agence yañ du teg agence inutile qui ne servent absolument à rien à part bouffer l'argent du contribuable ñaata structure budgétivore conseil économique au conseil yooyu yépp ñu war a rationaliser le train de vie de l'État defuñu ko moom moo njëkkee cette gestion anarchique njëkkee recrutement abusif abusif moom moo ko njëkkee donc il est temps que moom mi ca bopp ba wàññi considérablement ses ministres conseil ses ministres conseillers wàññi agence yi mu waxoon promettre ne dina ko wàññi alors que sër yu toog amul lenn luñ ci gis lu wàññi bu ci paree nag ñu doog a wax ak ses ministres et ses DG qui sont là uniquement pour se servir des post la pas pour travailler mais pour avoir une base politique et s'en servir pour un tremplin électoral. d'accord léegi euh, ba tey euh, ñu wax ci li nga xamante ni tey moom mooy euh, gis nañ syndicats yi baree baree bari ñoo ngi grève maanaam gis nañ poste waa poste Euh, mbirum détournement ba ñu fay tudd euh, université yi euh, mu mel ni fond sociale bi daal mu ngi mu ngi yéeg jamono ji lan nga jàpp ne moo ko war waral lan mooy solution bi. mais wax naa la ko dans tous les secteurs foo laal day metti nguuru mi moo baax nguuru i Sall sa gestion moo baaxul. mais est-ce que nekku leen ci ginnaaw syndicats yi aussi. non mais de là les syndicats ils sont responsables. les étudiants sont très responsables. man j'ai eu la chance d'avoir fait des études supérieures. j'étais à en tant que étudiant syndicaliste tey jii boo demaatee université ñun lañ doon xeex di sànni xeer boo demee université moom la étudiants yi di xeex mooy lan condition de vie et d'étude condition sociale yi ñëpp xam nañ ko à l'université condition pédagogique yi ñëpp xam nañ ko benn amphi ba nga xam ne nii mille personnes la war a jël wala deux mille personnes se retrouve avec dix mille personnes le président Macky Sall n'a aucune solution léegi nga koy gis fan en plus grève yi wax nga ko secteur boo laal day metti teewul ba léegi yooyu ci yàbbiwu ci ay ministre am waxuñu ci c'est irresponsable de leur part. ñu jugeeti ci loolu lan nga jàpp ne moo waral noppi googu président noppi ndax gis nañ conseil des ministres même communiqué wala ci université yi. dafay noppi parce que amut solution. dafa dem ba sësu ci miir xam nga le problème de fond mooy bu ñu la dénkee mbir mu ëpp say loxo dangay dem ba finalement doo xam foo koy teg je donne un exemple très évolution bi nga xam ne nii euh, sociale bi am na ko yàgg na ko am mais da ngay jékki-jékki il appelle woote négocier après une une solution conjoncturelle solution conjoncturelle du solution da romb étape boobu problème yi ñëwaat regarde le cas des des enseignants lan la ñuy wax le respect des accords nan ngay nekkee kilifa wax ak say moroomi nawle ngeen signé accord doo respect euh, accord yooyu nguuru Macky Sall ngay dégg saa su ne étudiants yi naan euh, euh, euh, enseignants yi naan la la ñu suñu woon daaw respecté wu ko ba ren la ñu suñu woon daawaat jéeg respecté wu ko mais c'est inadmissible kilifa boo nekkee kilifa di wax ak ñi nga xam ne ce sont tes bul jël engagement boobu mënta respecté mais nag loolu du ñu bett ci le président Macky Sall saa su ne mu jël engagement bu mënta respecté bu ñu fàtte ne en 2016 dafa fonkul kàddoom non looloo gën a doy ci réew mi am kilifa gu fonkul kàddoom gis nañ ko ci mandat bi 5 ans 7 je prends même l'exemple bërki démb jaloog ba mu woote woon France daal di xëddeen ak leneen ak leneen moo tax xam naa dinañ ci ñëwaat yeewi askan wi ne ñun ñu dialogue parce que tout simplement booy dialogue da ngay dialogue ku respecté kàddoom ku fonk kàddoom mais saa su ne lu mu la wax mu teggeeku le cas des enseignants la le cas des universitaires sont la le cas des étudiants sont là et je vous dis une chose lu mu leen woo promettre leen ko bu subaa mu teggeeku et il n'a pas une solution structurelle bu koy permettre mu régler tous ces problèmes là parce que tout simplement dafa dugal réew mi ci guuta ci bët gu set euh, ci guddi gu bët setagul. kon da nga jàpp ne fi mu ne nii dafa wane tëleem. dafa wane lajjam wane tëleem il est temps qu'il parte et qu'il laisse pays entre des mains responsables yu mën a redresser réew moo dem élection ñëw na. waaw moo tax moo tax ñu ne li ci des rek gars yi nañ ko nañ ko muñal nañ ko muñal incha allah en 2024 moom comme pare na yàlla dogal na ne. il ne kon yow mu def beneen mandat. non mais xalaatu ko vu la tension sociale da koo xalaat. tey jii bu nekkoon ci xelam sax dana ko rocc ci xelam marche exemple la marche yàggul c'est récent lii nii couche sociale bi demee nii nii dans toutes les franges de la population ni muy demee nii xalaatul xalaat sax ne day def mandat. Euh, candidat su taxawoon ne day def beneen mandat constitution bi na ko yow président Macky Sall Macky Sall am nga sañ-sañ def beneenu mandat. ndax yéen boobaa di ngeen bàyyi constitution bi ngeen d'accord teg ko fi mu mu ñu jëfee loolu mu wax. ñun on est forme. de troisième candidature du président Macky Sall. la constitution est très claire nul ne peut faire deux mandats. mais ngeen bàyyi ma dem ci loolu dama ne c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre une chose man je te parle d'une suite logique. tey jii situation réew mi fi mu toll président Macky Sall xelam fukki xelam mayu ko mu ne day présenter troisième candidature benn waru ko ñaar amu ci euh, sañ-sañ ñetteel ba sur le plan constitutionnel même sur le plan social amul sañ-sañu ne taxaw ne day laaj troisième mandat. même sur mais moral duma ci dugg parce que comme je t'ai dit xam nga moral la moralité relève des valeurs d'une personne nit ki boo amul moral boo amul boo amul valeur yooyu pour ñoon ñu natt sa moral day jafe da ngaa taxaw nañu ñu cinq laay def duma def cinq sept ans ñu jóge ci loolu nga weddi sa kàddu. wax waxeet waxaat waxati waxeet kooku les valeurs la liées à la moralité du ko ko kole moo tax sur le plan moral du ko wax leen laay wax sur le plan social et sur le plan juridique mayuñu ko mu def troisième mandat te incha allahu rabbi bis bu ko jéemee aventuré wu def le peuple sénégalais se dressera en face de lui. boobaa peuple bi dañuy dem sa urne ya wala si mbedd mi. li ci kanam rawali bët. d'accord jërëjëf euh, Mor Diaw ñu daal di wax ci wàllum njëg yi. dañoo gis ne bëri na njëg yoo xam ne dafa yokk fi mu nii ci diwlin gi euh, ci réew mi diwlin gi dafa yokk suukar si wàññeeku woon mais yokkaan na fi ne nii ciment bi ak euh, ak béton bi pomme de terre bi ak soble si ak euh, mburu mi tamit dafa dafa yokk ba si meew mi léegi ministre du commerce moom dafa dañ koo dégg mu ne fi mu ne nii nii mburu mi mënut a ñàkk bañ yokk léegi yokk yooyu moom te ñun gis ñun jàpp nañ ne président bëggul mbir yi yokk dafa def cee mënatu dara <laughs> wala lu xew moor. non parce que tout simplement on ne maîtrise pas économie. xam nga réew boo ko yoree da ngay en place des mécanismes yu lay permettre nga maîtriser les agrégats économies c'est-à-dire. cest à da ngay jël exemple ñun la plupart li ñuy lekk lépp dañ koo jéggaane li ñuy sol dañ koy jéggaane li ñuy utiliser comme biens de services dañ koy jéggaane tey jii le cas de Orange est là les secteurs boo jël. secteur primaire tertiaire secondaire lépp amul lenn luñ ci maîtriser te on a benn courbe ba nga xam ne euh, c'est extraverti. notre économie amuñu autonomie c'est ça que je veux boo jëlee notre économie on a une économie extravertie qui fait que tey jii ñun suñu PIB li ci ëpp doole ci secteur tertiaire lay jóge te secteur tertiaire mooy service yi te loolu nguur gi maîtriser wu ko lu ci am diggante orange ak ainsi de suite ay élevage lay lay am te loolu dañ koy yóbbuwaat ñoom ci seeni réew. donc ñàkk googu nekk ci réew mi day dem ba finalement ñoom dañuy digee rek mais xam nañu actuellement nous sommes nous avons une économie qui est à l'agonie parce que tout simplement génn na ñi ngi ci post Covid ñu ngi waaj a génn ci Covid situation de restriction yi nga xam ne nii amoon na ci Covid bi ñëw euh, sur le plan économique répercuté wu maîtriser wuñ ci dara. les cours mondiaux leneen ak leen bu augmenté woo maîtriser wuñ ci dara ils sont obligés ñuy xool parce que tout simplement ils sont pas bien préparés à pouvoir gérer notre économie. mais est-ce que du corona bi moo tax dëkk bi mel nii. non euh, j'ai dit xam nga euh, gouvernance c'est prévoir gouverner c'est prévoir tey jii bu fekkee ne monde bi entier dañoo dugg ci situation corona ñëpp xam nañu économie yëpp def leen di éprouver bu baax. à partir de ce moment la waroon nga jël ay mécanismes d' anticipation tout en sachant que tey jii am na noo structurer sa économie post Covid ce qui n'a pas été fait. mais lan moo tax yéen defu leen benn proposition jëm ci wàllu yéen opposition bi. non mais parce que yéen yéen moom nay nay nay nay tàng nay baax. non attendez les choses sont très simples. moi je vous ai dit tout à l'heure que nous avons ñun un programme programme alternatif Suxali Sénégal ak yeneen ak yeneen. nga proposition koo koy def mooy ku lay déglu. en réalité le président Macky Sall talul réew mi le président Macky Sall est dans une logique de politique politicienne ba nga xam ne nii tous ces faits et gestes sont liés à euh, aux prochaines élections aux prochaines élections nan laay def ba falu nan laay def ba sama nit falu nan laay def ba ñi ma àndal falu moo tax à partir de ce moment là même sur le plan économique boo koy jox ay propositions du ko avaler mais mais ko xelam ko yow sànq nee nga xelam nekkul ci 2024 kooku kay xanaa war naa mën a fi mu nii taxaw pour xalaat lan moo jëmale réew. j'ai pas dit moom xelam nekkul ci présenté wu élection 2024 mais xelam a nga 2024. parce que ce qui est clair mooy il va chercher un nouveau remplacement un remplaçant tout en sachant que Macky ñëpp a tey jii ku fi mën mënti tegit réew mi ñoo suur Macky Sall ak benn bokk yaakaar de manière générale maintenant xelam a ngi ci parce que tamit am na looy def. luubal népotisme jaxase réew mi situation bi metti tendre kenn xamul fa ñu jëmee réew mi suba bala nga bàyyi réew mi di nga wut koo fi teg pour mu jëm la remplacer te loolu seet dépassé nekkatuñ ci logique boobu on est plus aux années quatre-vingt. léegi yéen euh, yéen waa Yewwi Askan Wi euh, gis nañ ne yéen a ngi wax tamit lu jëm ci wàllum euh, carte yi carte électeurs yi lu jëm ci wàllum distribution bi. Euh, gis naa yéen seen leader yi ñoom Malick Gakou Déthié Fall kalifa Khalifa Sall ak Ousmane Sonko yéen yéen a ngi njortu ne pouvoir bi dañoo bëgg a sàcc li nga xam ne mooy mooy élection yi mais yenn ci ay njortu ngeen ko ngeen ko teg lan moom moo tax ngeen njortu loolu. xoddeeku bala ngaa lakkle dañoo xam ne élection yi fi jot a jaar yëpp ci nguuru mag Sall dañ koo sàcc 2017 ngay gis ñu joxe résultat département Dakar une heure du matin sàcc romb loolu. 2017 ngay gis leader yi présenté wu ci seeni département ñu jël carte électeurs yi téye ko ba primo votant yi voté wuñu c'est exactement liy xeeñ 2022 bi ci élection locale yi boo xoolee prend le cas de Ziguinchor par exemple sur plus de 3000 inscrits ñu indi fa 195 cartes électeurs parce que tout simplement ils savent que les primo votants ne vont pas voter pour eux toute la jeunesse du Sénégal est actuellement éveillée ñëpp élection yi la ñuy xaar pour dem voter ji nga bloqué carte yooyu pour pouvoir def sa mbuxum xoddeeku nag bala ngaa lakkale bu ñu gisee nga sàcc nga ñu 2016 sàcc ñu 2017 sàcc ñu 2019 foog ñu artu alerte ba 2022 gi sàcc googu ba na prospéré. d'accord léegi euh, yéen nee ngeen tamit da ngeen porté porté ngeen sax plainte euh, Djibril Ngom mi nekkoon seen ex mandataire départemental ci Matam nee ngeen tamit da ngeen di yóbbu. président Macky Sall haute cour de justice loolu moom dama jàpp ne dangeen ko bëgg wax noonu rek pour xumbal waaye jël président Macky moom di ko yóbbu haute cour de justice jàpp naa loolu moom xalaatu leen ko. xam nga Cheikh Abdou Khadre je je vous donne un exemple très simple ñun au sein du grand parti ay valeur la ñu àndee ñenn ñi gëj na ñoo xamante ci aadama ak awo mais des valeur et des principes la ñu àndee moo tax tey ñu constitué wu def grand parti. nga jël yeewi askan wi ñu jàpp nañoo bokk ay valeur yoon la ñu ànd ensemble pour xeex pour réew mi génn ci gudde gi ñu nekk à partir de ce moment la ñun dañuy promouvoir les valeurs tey jii boo jëlee cas de cas bu mel ni cas bu Djibril Ngom le président Macky Sall tey promouvoir les contre valeurs yow ñu ne la yaa sàcc yow ñu ne la yaa daw ak suñuy kayit yow ñu ne la ñu ne la ñu ne la accuser la loolu yépp nga def loolu yépp xëy suba mu recevoir la ne la bravo mais loolu c'est inadmissible ci ban réew la ñu nekk loolu ce n'est rien d'autre à part promouvoir les contre-valeurs te dafa ñaaw lu mel ni palais de la république nga fay recevoir ay contre valeur gi ko afficher c'est pourquoi d'ailleurs je rejoins parfaitement les leaders de Yewwi Askan Wi ñi ne dañuy porter plainte Djibril Ngom parce que il faut un cas d'exemple un cas d'école Djibril Ngom li mu def c'est très dangereux moi j'étais mandataire de Yewwi Askan Wi à Guédiawaye mandataire tu as le plein pouvoir de pouvoir def li la neex boo duggee ca biir mais nag bu ay askan ay organisation politique moo xam partie la moo xam mouvement dajale seen kàddu yi ñëpp dénk la nga dugg ca biir wala bala ngaa dugg ca biir nga yenn kàddu googu daw bu boobaa mën nañ laa topp mais au delà de daw ba nga ñëw première institution wu réew mi recevoir la. di la féliciter ak encourager. loolu c'est très dangereux pour ce pays. mais est-ce que seen plainte boobu ngeen def Djibril Ngom euh, dina mujj fenn. mais bien évidemment dina mujj fenn. Ah, mais non yéen yéen ne justice bi dafa jeng du laal jege ñaale Macky Sall mais moom si jëmmi Macky Sall ki Macky Sall recevoir te yéen nee ngeen justice bi dafa jeng fan lay mujjee. maanaam li leer ba leer mooy euh, quoi qu'on puisse dire ñun on ne peut que se dëkkuñu euh, Gambie dëkkuñu Mali dëkkuñu euh, Mauritanie ñun Sénégal la ñu dëkk Macky Sall je donne un exemple très simple lu mu lajax lajax lu mu nasax nasax nasax nasax lu mu lajj lajj lajj lajj il reste notre président de la République. Mm-hmm. donc justice bi ni muy doxee bu baax ak ñàkk a baax tamit la justice reste notre justice. par conséquent munuñu mënuñu kalaame ji. parce que bu demee ba réew fayal sa bopp am c'est parce que réew moom ñu ngi ci anarchie moo tax comme mënuñu ko kalaamee feneen fu du ci justice justice lañ ko war a yóbbu benn bi ñaareel bi mooy la la la la plainte contre le président Macky Sall mais bien évidemment ñun comme li ma la wax moo ci nekk lépp lu ñu yoon may. dinañ ko def dinañ ko def pour xeex ak régime bi nga xam ne nii jàpp nañ ne xelam ak xalaatam nekkul ci répondre aux aspirations des populations mais plutôt une politique politicienne ba nga xam ne nii ñoom la ñuy mën a chaque fois pour se remplir les poches ak pour yàq ak pasar pasare alalu réew mi kon yow da nga jàpp ne même plainte Djibril Ngom bi au delà de Macky Sall bu demoon ba jógee fi sax plainte boobu mën ngeen ko maintenir. non day wëy parce que Djibril Ngom li mu def c' est très grave et d' ailleurs c' est par ricochet c' est euh, euh, parce que mënut a incarner lii Djibril Ngom contre valeur yi Djibril Ngom yàq suñu liste def lim ciy def ba pare daw ak moom ñëw le président Macky Sall recevoir ko ñaar ñooñu dinañ leen topp ba suba lu ñu yàlla lu ñu yoon may ñu jël. mais amu leen yaakaar moom. non am nañ yaakaar c'est clair que am nañ yaakaar parce que ñu jàpp nañ ne haute cour de justice ah, ay justice ay juges yu responsable ñoo fa nekk ay juges ñoo fa nekk jàpp nañ ne dans ce pays aussi c'est pas tous les juges ce sont pas tous les juges ñoom ñoo nekk ay euh, juges yuy yuy teggi yoon. jàpp nañ ne ci magistrature bi y a des magistrats compétents et et également des magistrats yoo xam ne nii ils sont responsables tey jii magistrature bi am na des magistrats dignes te ñooñu ñeneen ñi mooy li ñuy wax rek benn pomme bu nëpp mën naa yàq saaku ñeneen ñi ñoo ci nekk am na ñeneen ña xam ne nii moom c'est des c'est des gens ya nga xam ne li yàlla xam doy na mais magistrature bi gis nañ ci des magistrats responsables effectivement on peut que se baser sur ça am yaakaar jàpp ne justice dina dem jusqu'au bout ba trancher le cas Djibril Ngom. sànq ñoo ngi wax ci réew mi nga xam ne dafa xaw a tagga témbe poste premier ministre xanaa bu dikkaatee moom fast track bi euh, dina gën a gaaw bar daal mbir yi réew mi xanaa dana soppeeku avec bu retour poste premier ministre. poste premier ministre li ma ci li ma ci tiital. mooy li ci président Macky Sall wax déjà moom en plein temps mi ngi gérer réew mi te ni koy gérer baaxul wax nga ko léegi secteur boo laal lay metti ñëpp a ngi grève sur le plan social réew mi doxul sur le plan économique réew mi doxul mu ñëw justifier ne day revenir le faire revenir post premier ministre teg ko ci duma am jot pour mën a gérer Sénégal bu baax damay gérer ji euh, Union africain mais loolu c'est très grave yow ñu jël suñuy léegi jox la ko ba tey nga am sa reconnaissance ses nga am reconnaissance eh, tes pairs ba ñu mën laa woowee président de la république du Sénégal nga ne duma ma mën a gérer Sénégal à temps plein dama ko fi bàyyi dem gérer ji Union africaine léegi dañaa leen tegal benn premier ministre c'est ça qu'on justifie la euh, euh, le retour d'un premier ministre c'est très grave. d'accord léegi euh, ñoo ngi dégg mbirum amnistie Karim ak Khalifa Sall nee na dàqu ko mais am ñenn ñoo xam ne dañoo jàpp ne da see bëgg Euh, dugalaale euh, ay lees waxul pour ñi nga xamante ni tudd nañu leen euh, ci ay ci ay mbuxum daal ci ay ñoñam ci ay xeet yu demee noonu ñu laaxaale leen ci amnistie yooyu. ah xam nga ñaar ñi nga tudd kenn demandé wu ci amnistie le président Macky Sall est dans la diversion. Mm-hmm. ñun on refuse d'être dans la diversion bi mu nekk. ñun on a un but précis réew mi sonn na askan wi song nañ naka la ñuy def ba génne leen ci guuta googu commençant par les élections locales après législatives et les élections de l'élection présidentielle de 2024 ñun ci logique boobu la ñu nekk mais logique de diversion en disant que damay amnistier keek dàquma ko dàq naa ko ñun duñ ci nekk di épiloguer parce que tout simplement jàpp nañ ne c' est de la diversion ñaar ñi ngay tudd muy aussi bien Karim Wade que Khalifa Sall président Khalifa Sall ñoom ñaar kenn ñaanu ci amnistie donc moom mënta dugal boppam ci pax gracier le président Khalifa teg Khalifa euh, Sall ñaanu ko ko mu ñëwaat bi ñu dugal ci logique de d'amnistie et autres ñu nekk ci di ci épilogue ñun on n'a pas de temps à perdre et on n'a pas de temps à ça. d'accord léegi euh, yéen euh, lan mooy seen bëgg-bëgg nag yéen waa Yewwi ndax gis nañ ne woo nañ leen ci cadre unitaire de l'islam pour ngeen signer charte bi yéen ngeen du ngeen signer charte bi président Macky Sall nee na dafay def benn jaloo pour waxtaanee pétrole ak gaz ndax dafa nekk mbir mu sensible moo xam ne opposition beeg société civile beeg ñëpp ci war a wax mais yéen nee ngeen ngeen wuy ji lu ngeen wuy ji yoon loolu moom euh, fan ngeen ko teg. ah déjà pour revenir ci dialogue bi wax naa la ko léegi léegi booy dialogue ak dama naan la kaay toog sur la table nii la ñuy dialogue nga ne ma nii laa lay dialogue terme de référence yu clair bu ñu paree ci loolu nga sàmm sa kàddu ma sàmm sama kàddu. premier dialogue nu mu mujjee France daal di xënte nañ jékki-jékki am la libération de Karim ñu jógee foofu def deuxième dialogue nu mu mujjee mu jeex nga gis l'entrisme de Idrissa sec en réalité le président Macky Sall est dans ce jeu politique bi ma la yàgg wax commencement ba léegi c'est exactement ce que je répète parce que tout simplement dans tous les actes euh, euh, yi président Macky Sall di poser da ngay gis ne posé wu ko pour l'intérêt des population posé wu ko pour l'intérêt de ce pays mais da koy posé pour ses intérêts crypto personnels liés à sa gestion politique moo tax ñun dialogue boobu duñu ci dem gëmuñu dialogue bi Macky Sall di wax parce que tout simplement moom ci boppam y' a pas de sincérité gëmul dialogue boobu. léegi euh, cadre unitaire de l' islam lu tax ngeen di ngeen signé euh, bi euh, pour man signer ko ou ne pas signer ko y' a il n'y a forme d' importance de mon point de vue parce que tout simplement le président Macky Sall moo ñu signeloo woon charte en 2016 muy la constitution de ce pays ñu voté ko huit gagnés. ba wii bi gagné constitution bi définir lépp bu ko respecté y aura pas de violence donc pour ñun jàpp nañ ne charte ba ñu signé woon en 2016 charte non charte non violence la te bu ko président Macky Sall respecté moo tax tout à l'heure maanaan la euh, non violence ci moom la ne jàmm ci moom la ne ay ci moom la ne moom mooy indi ay wala mu indi jàmm parce que bu respecter la constitution jàmm danaan ñooy on n'a pas besoin de signer beneen charte parce que tout simplement nous avons signé en 2016 la charte fondamentale qui est la constitution de ce pays-là bu régir l'ensemble des normes des règles et des lois yi ñuy permettre ñu mën ci dox ci jàmm donc nag nañu respecté loolu jàmm na ñooy. d'accord mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 seen émission euh, pencum réew mi. Euh, muy am euh, samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sand ak Abdou Khadre Seck tey ñu invité euh, moor Diaw moom mu nekk responsable moom moo nekk coordonnateur national des jeunes du Grand Parti waaye tamit mu nekk mandataire Yewwi Askan Wi ci département bu Guédiawaye dina ñëw ci département Guédiawaye mais au niveau national yéen waa Yewwi Askan Wi suñu leen déggee ngeen di wax même Barthélémy Diaz. dafay joxe rendez-vous kane moom presque daal mën na ne moom gañe na mairie Dakar ba pare beneen bi tamit yéen seen ñeneen ñi tamit boo déggee Ahmed Aïdara mi nekk ci département Guédiawaye euh, nga dégg ñoom Mayakor koo dégg daal ñi si yéen yeewi da ngeen a jàpp ne gañe ngeen ba pare loolu moom euh, fan ngeen ko teg. non parce que déjà yeewi askan wi c'est la première force politique de ce pays loolu c'est constaté et reconnu maintenant leneen li ci des mooy askan wi ci boppam. yeewi mur de lamentation la askan wi ñooy ñëw duñu jooy seeni soxla te am ci ñun yaakaar ñu jàpp ne yaakaar googu jëmmal gi ñu ko jëmmal à travers yeewi askan wi askan wi du ko tasaat au soir du 23 janvier c'est pourquoi ñu am confiance gëm ni incha allah bu commune yeeg ville ville yeeg yëpp yépp yeewi askan wi candidat ba mu fa am dina remporter les élections au soir du 23 janvier comme j'ai dit leader yi séq yeewi ak personne ak personnalité yi séq Yewwi ak suñu candidat yi nga xam ne ni ñoo nekk ci gox-goxaat yi askan wi daa am ci ñoom ya am ci ñoom yaakaar donc à partir de ce moment là dañuy dérouler rek xam ne effectivement comme l'a dit euh, euh, le le le maire Barthélémy Diaz Euh, doxantu lay nekk au soir du 23 janvier ñu consacré suñu victoire au grand bénéfice et au grand euh, euh, bénéfice du du peuple sénégalais parce que peuple sénégalais moo moo moo wóolu Yewwi. d'accord mais yéen Yewwi da ngeen a jiital Ahmed Aïdara ci département Guédiawaye Ahmed Aïdara gagné Aliou Sall nag man ci li ma gis mooy nekkul loo xam ne. lu yomb lay doon lan moo tax ngeen jiital Ahmed dara foofu. waaw déjà euh, pour euh, wax ci département de Guédiawaye dama ci sawar parce que man miy wax ak yow je suis né j'ai grandi à Guédiawaye Guédiawaye laa xam euh, ay dara déjà maa ngi koy nuyu de passage il est notre candidat au niveau de la ville nga jël comme vous avez dit Khadija Mayakor Diouf de Pastef nekk au niveau de Golfe Sud nga jël suñu mairesse sortante Euh, madame Aminata Ami madame Aminata Kanté mi nga xam ne nii euh, maire sortant la moom mu nekk suñu candidat au niveau de Sam Notaire bokk grand parti à Wakhinane Nimzatt également euh, le maire Tahir Konaté nekk fa bokk grand parti à Gounass Médina Gounass y notre maman Ndiémé Bar moom moo fa nekk en tant que candidat wu askan wi nga jël njaarim Limaamu Laay le doyen Euh, Cheikh Tidiane Thiam moo fa nekk en tant que membre de PUR mais Yewwi Askan Wi de manière générale ñooñu mën a limal tey ñooy cinq candidats yi plus le candidat de la ville ñooñu nag ñoo constituer équipe équipe bi ñu constituer pourquoi ma wax la ko parce que tout simplement dangay jël équipe équipe boobu de manière générale ñépp ñi fa ne ku ci juddoo géejawaay yaroo nga fa màggee nga fa xam ruqu ruqaani géejawaay am sociologiquement parlant nga frotté woo géejawaay ba moo ñaale sa bopp ci géejawaay à partir de sa moment la bu ma jàkkaarloo ka nga xam ne nii il n'a jamais été à géejawaay juddoo fa yaroo fa màggewu fa xamul géejawaay euh, je termine je termine xamul géejawaay amul histoire avec géejawaay te yow ci sa bopp nga xam ne élection locale élection gox-goxaan la mbiri nawetaan la doomi géejawaay yi nga xam ne ni dañoo dajaloo ci liste Yewwi Askan Wi saafonteg waa géejawaay jëf ci géejawaay avant même ñuy bëgg baatu askan wi ak géejawaay je pense que ñooñu bu ñu demee laat wala ñu dagaan baatu askan wi y aura pas photo ñoom ak l'autre camp c'est pourquoi tout à l'heure ma la jàpp nañ ne doxantu lay doon ay ah. dara sa personne bu demee il va battre Aliou Sall mais nag au-delà de Ahmed Aïdara dara est le candidat au niveau de la ville il est entouré d'une équipe ba nga xam ne nii de jeunes comme j'ai dit de jeunes talentueux de cadres de cadres compétents qui sont capables de pouvoir relever les défis et les aspirations des populations de Guédiawaye ah. looloo tax ñu jàpp ne fi mu toll nii tembe à Guédiawaye moom y aura pas match parce que tout simplement Yewwi Askan Wi dans sa globalité les cinq communes et la ville euh, va remporter les élections Yewwi Askan Wi va remporter les élections au grand bénéfice des de Guédiawaye euh, Mor Diaw yow euh, Aliou Sall tamit ci candidat Benno Bokk Yaakaar ville de Guédiawaye la mais yeneen commune yi ña fa représenté benn Bokk Yaakaar ay doomu Guédiawaye lañ dama ne xam nga capitaine dafa am solo ci équipe Aliou Sall tudd nga ko tuddaat ko sax moo tax ma tudd ko le problème de fond mooy Aliou Sall dafa am lu ko doy sëkk le problème du pétrole et du gaz sont là tey jii Aliou Sall incarne il est le symbole même de la mal malgouvernance dans ce pays. tey jii tey jii mais moo tax gàkk gàkk boobu lañ bëgg a raxas ñun waa yeew yi mooy li ma la wax rek xam nga askan wi bu la dénki am ci yaakaar day dagan yow nga jug sumbeeku sol sa dàll xeex ba raxasal ko gàkk-gàkk googu tey jii ku dégg pétrole scandale boobu ni mu toll ci réew mi ku déglu gaz scandale bi ni mu toll ci àdduna bi ñu taqale ci Aliou Sall ba muy taqal deru géejawaay te màggewu fa yarewu fa amut histoire ak géejawaay je pense qu'il est temps ñu raxas ko ba mu set mu dellu fa mu jóge ñun ñu toog ñun waa doomi géejawaay yi nag defaraat suñu géejawaay tey jii euh, bu fekkoon ne bonne gouvernance ak gestion bu jaar ci yoon rek mooy dox ci réew mi Aliou Sall tey du toog naan candidat la heure bi kaso la koy fekk. léegi lan moo tax euh, Malick Gakou nekkul candidat. waaw loolu nag moom euh, li ma ci mën a wax mooy boo xoolee président Gakou euh, modèle la référence la pour la jeunesse du pays et particulièrement la jeunesse de la banlieue et plus particulièrement la jeunesse de Guédiawaye tey jii président Gakou n'a plus rien à prouver à Guédiawaye et à Pikine dans la banlieue de manière générale parce que wax dëgg yàlla les vingt dernières années dans tous les secteurs croisés de la vie des pays de, des populations président Gakou dugal na ci loxoom ba tey jii boo nee Malick Gakou sax ni Guédiawaye donc nag amatul lenn lu muy prouver mais euh, situation day toll fa nga xam ne nii euh, ay jarbaatam ay petit frère am màgg nañ dem à l'assaut de la commune et des villes non non président Gakou dépassé na fu muy jàmmaarloog Aliou Sall président mi ngi suñu ginnaaw mi ngi ci suñu kanam président Gakou au mois où je vous parle on se prépare en conséquence bu ñu gagné législatives locales yi gagné législatives yi teg président Gakou ci bopp réew mi mu jàmmaarloog ka fa ki fi Macky Sall di di tànn comme candidat ci benn Bokk Yaakaar xaw ma wala fan mu jàmmaarloog moom gagné ko ñu jël réew mi changé ko président Gakou foofu la teg bëtam maintenant nag Ahmed Aïdara il est valable pour porter le drapeau de Yewwi Askan Wi à Guédiawaye et le président Gakou et très fier de lui c'est pourquoi mu teg ko jëmmal ko ànd ak moom di ko gunge wax ñu ñun ñépp ñu ànd ak moom nekk ci ginnaawam gunge ko ba yàlla def yàlla may ñu ndam bu ñu mayee ndam ensemble ñun ñooy gouverner defaraat seen géejawaay parce que nag géejawaay souffre waxuma la dara mais sur le plan même médiatique waaja ne géejawaay comme li ma la wax ak liñ koy taqal ci réew mi bitim réew tey jii bu doon bon gouvernance dong moo xew ci réew mi kaso lay fanaane. d'accord mais est-ce que yéen waa Yewwi au niveau départemental est-ce que ànd bi war seen diggante ànd ngeen ko. alhamdulilah tout se porte très bien tey jii boo xoolee Yewwi gépp Guédiawaye ànd nañ def benn bloc parce que on a un objectif commun qui dépasse même nos personne mooy population Guédiawaye dafa soxla ay doomi Guédiawaye bu ñu amee lu ñu neex mu am lu ñu naqari dañ koy teer jublu ci essentiel boobu moo tax d'habitude ñu naan univers l'essentiel essentiel bi mooy jëlee fi ñi fi ne teg ci bopp géejawaay ay doomi géejawaay ñu mën a redresser géejawaay. d'accord euh, jërëjëf euh, Mor Diaw euh, ñu lay sant di la gërëm. maa ngi lay sant Cheikh Abdou Khadre di la gërëm bu baax di kontaan ci invitation bi di sant mboolem ñu ñu doon déglu di wax ne nag fi mu toll le pays est à la croisée des chemins. jot na ñu jëlaat li ñu moom li ñu moom mooy fexe ba nguur gi nga xam ne nii mu ngi fi di salfaañe ak ak yeleefu doomu aadama yi nguur gi nga xam ne mi ngi fi di dëggate démocratie bi ñu jëlee ko fi teg fi ñeneen ñu bees ñu mën a redresser réew mi te loolu gis naa ko ci yeew yi te loolu nag mu ngi commencé ci élection locale yi incha allah man géejawaay gëm a dëkk waa géejawaay ñu ngi dagaan seen baat di leen ñaan ñu voteel Yewwi Askan Wi le 23 janvier ay dara dem ville les cinq communes Aminata Kanté rempilé ñeneen ñëpp gagné seeni mairie incha allah ñu am une gestion collégiale et une gestion concertée au niveau de la ville et au niveau des différentes communes mën a redresser suñu réew bu ñu jógee ci loolu en 2024 président Gakou sampu ànd ak équipe bi mu àndal ñu fal ko à la tête de mën a redresser réew mi maa ngi sant bu baax di la gërëm. jërëjëf euh, Mor Diaw mbokk yi moo nekk coordonnateur national de jeune du grand parti mandataire Yewwi Askan Wi ci département bu Guédiawaye moom lañu ñu invité woon ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM 97.5 muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck du Diaw jàll moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm jàmm.